ñii ñoom. Mm-hmm. ala kulli aalin ñoom ñooy gagné même rawante fa sax. dañu mm-hmm. naan voici les favoris. Mm-hmm. ñii ñooy outsiders yi. ñoo xam ne yàlla mën na ñëw rek ñu bokk ca. mais favori mooy ñi nga xam ne dañuy gagné mooy mooy gars yi gagné gars yi gagné. mos a dégg wiiw ñooñu la ñuy dajale bañ nekk groupe ñu ne ñii nag ñoom ñooy favori wu compétition. ñun de wiiw a jiitu sunu coupe kenn mës gis lii. dégg nga loolu. léegi moo tax Eto'o nag bi mu nee ñun bokkuñ ci ñu mer ndax ñu suñu niveau joueur yi instant bi fi yegg mais buñ toppee rek rek rek rek sur le papier def ne favori yi mooy ñi gagné te nag ci tubaab aussi bu ma juumalee nag ci tubaab favori mooy groupe boobee nga xam ne ñoom yàlla dogal na ca ñoom mës ñooy dégg wiiw ñooñu ñooy dégg wiiw mooy élite yi ah ci bokk ñooñu la seeni mayo am ay ay biddiw mooy ñoom Égypte ak ay Cameroun ak ay Maroc ak ay Côte d'Ivoire Ah, amuñu mais favori aussi mën na nekk ñi nga am yaakaar ñu sori. parce que ah. boo amee ay joueurs yoo xam ne ñi nga Europa League nga am ci ñoom yaakaar ñi nga am ci mooy les meilleurs. waaw les nag mooy ñan mooy ñi nga xam ni dañuy gagné wala mës a gagné. Mhm. mais yow da ngaa mësul gagné déggoo ma de. yow nag door nga fi équipe bu africaine bu ne. daal dem nga fi ba fi waaj a toj te tojoo fi. waaw kay nag léegi Eto nag daa jël ñu toj dajale leen nit ñi Afrique du Sud gi sax day gagné na. perte mère de am na. organisé 96 da ko organisé gañe ko nit boo organisé waroo ko ba mu génn. moom day indi nag ay dates yoo xam ne man day jaxas sama bopp. waaye man ñun na yu ñu fekkeewul sax Éthiopie jël na ko. Soudan mii boo bëggee suñu waxtaanee ci football commencé le 2000. Soudan mii ci El Bichir bii ay jamonoy Soudan gii. Guinée ah. bu njëkk la ñuy wut. Ah. Ah? Zaïre <laughs> jamonoy Zaïre di ngeen gañe wala ngeen tee sax jël nañ ko déggoo ma ñun nag danoo gañewul dara. Ah. maanaam xam nga am na ay président yoo xam ne loolu sax du démocratie nag ay sa équipe di dem football nga ne leen boo leen gañawul boo leen ñëwee ci réew mi naa leen yóbbu ci camp militaire yeeg yooyu. Mm, defoon nañ ko Côte d'Ivoire. waaw yooyu yooyu defuwul sax yooyu defuwul. sax yooyu du la rafet mais ñun tamit dañuy dañuy dañuy dañuy favoriser di dooleel médiocrité maanaam jël leen ndaare wala avant ndaare boo leen ñëwee ñu gàttandu leen comme yéen a jël ko bu ñu demee demi final bu équipe bi ñibbisi mel ni ñun ñoo gañ a kubba. waaw hmm? daanu mel ni ñoo daan. parce que mosuñu dem final. quart de finale coupe du monde yi la même chose. ah léegi nag comme que ñam nañ yooyu neex na. jox daal daa baax ci nit. wala Madagascar ni ñu dóoree Nigéria ah, rek. dañoo gëj sax demi final. yàgg na waaw c'est vrai yàgg na kaar ba tey kaar. ba pare kaaroo ba tey sama benn xarit ak ma naan la moo tax ñun Sénégal ay arbitres yu ñu suspendre rek lañ ñuy jox ñuy arbitrer match. bàyyi leen arbitre yi. Ah, Lamine keroog maa ngi dégg arbitrage bi tamit parfois mooy loolu de déglu rek déglu rek keroog maa ngi. la moo tax arbitre bu ñëw rek ñu ne contre ñun la tamit. yaakaar ci penalty ci oto laa doon dégloo match bi ma dégg. penalty euh, ci football euh, am benn joueur Sénégal xaw ma Salif Ciss la xaw Pape Alioune Ndiaye. Mhm. ñu passe ko mu def en face. Mhm. perte bal bi. Mhm. Euh, arbitre sifflé. arbitre ba sifflé coup franc. pour Sénégal. Lamine Gueye ne Léopold léegi par extraordinaire bu arbitre sifflé wul woon tey fu ñu jëm. arbitre ne yow day am ay gaañ yu leer. penalty Sadio Mané bi tànc la. dañ ko tànc mu leer naa ñu loolu la. xam nga li ma la mais sifflé wu ko loo ci man. te doo ko yaakaar ci basé loolu mooy yàq match yi ci basé wu mais ci football la bokk ci football da ciy bokk mais doo ci basé wu. xam nga da arbitrage bi moom mu nekk en faveur de l' nationale du Sénégal mais ah. quand bu tegoo ci yoon c' est à dire y nga réalité football moom mu ngi fi déjà kenn mënu ko bañ. nii ngeen di def mais penalty yeeg football yooyu yëpp ci football la bokk. nii ngeen di def ba mu ne nii ngeen def ba may kenn du fi tudd ko bi. arbitre bi même bu ñu nekkee contre ñun nañ leen teg feere ñun am suñuy fu lay football. Eh, dama ne eh, eh, arbitre eh ngay def centre en retrait dóor bal bal bi di dal ci kaw arbitre bi. waaw ci trait mu dal ci kawam. Mhm. fekk mhm. la ni yéen acteur la loolu bokkul. loo ci mën penalty bu amee dañ koy siffler fee ko ñooñu dóor ko mu dugg ñu gagné 1-0. loo ci waaw bu yeboo may ko siffler rek. algérien yi ñu arbitre ne prip yi ne leen dem toog ci kaaw Sénégal yi étouffé leen kese ñoo leen arbitre newul terrain ñoo leen dàq leen a gaañe gën leen technique suñu entraîneur mën seen leen di gaañe leen leen def seen bopp dañoo envahir ñu mel ni ay rab ah, algérien ah, waaw waaw léegi lan contraire lu tax contraire bi am lu tax ñun wanuñ leen ne ñun suñu entraîneur moo mën seen entraîneur ñoo leen ëpp ay joueurs au niveau ñun amuñu benn joueur local bay am ñaari locaux ñoo leen ñoo leen ëpp physique ñoo leen mën gën leen a ñool xaar ba Kéña nee jàppalante xam nga li ma xam nga li ma neex ci naari quatre-vingt-dix minutes dañuy jàpp ne amuñu but même qualifié nañ dañuy jàpp ni qualifié wuñu démb dama saan Égypte démb sama xol bi dafa sedd donte faralu ma leen mais sama xol bi dafa sedd parce que da gis ni détermination lañ ci àndal donte qualifié nañ seen dëkk la ñuy footballé dugal nañ benn but mais non non doyaluñu da ngay gis ni même ba deuxième bi duggee ñu ngi doon utaat beneen troisième waaw ñun bi tong tongal équipe bi seen kaw bopp bi di daw ak ñoom yor jikko jinax <laughs> gaaw suur dañoo gaaw suur loolu dëgg la ay carton éliminé nañ ci coupe du jinax Pologne garaawul sax tolloo nañ Japon mënoon jéem koo gañe di ko dugal mu ñuy jëli mu ñuy jëli ñu génn ci match nii bi di jubilé ne léegi carte gi leer ñu dem Colombie laal ñu benn ay carton moo ñu toogloo carton keñaane yi ñu ngi leen di xaar keñaane yi waaw nañ ñaan yàlla rek Lamine daal mbir mi daal ñaan la mbir mi ñaan la Cheikh Tidiane Gomis mu ne ak ak rek rek rek rek rek rek rek mën nañoo topp mais bu dee dañoo yoreel tamit ay nit <laughs> ay bor dëgg la dañ leen ko fay bu dee dañoo tooñ tam waliwu tam nañ ñu bu ñu demee bu ñu demul yëpp nañ ñu baal xam ne ci dëkk bi la ñu ne nañ ñu dimbali aqu ballon aqulal ballon lépp kay karaté gars yi dañuy jël kenn bu leen faale <laughs> jël ay 3 milliards déglee ko benn équipe boo xam ne yow doo mës a gagné bit si sukkar gaa ngi ni gagné lu toll ni gars yi dem championnat d'Afrique gagné amuñ sax avion bu leen indi ci biir karaté bi mondial bi dañuy sori <laughs> coupe d'Afrique bi moom basketball testu tey bi man de ba ñu dalee def test ba léegi ma gis tës bu mel nii. ah Mamy Samb waaw. Eh. waaw. li fi jot a jaar yëpp. 2011 xaw ma 2012 ba ci yàlla tey. moo tax ma bëgg sumeer deuxième partie bi ñu ubbi téléphone bi parce que lii xaw ma yëfumaa tey la xaw ma iñaan la. xaw ma ñàkk a jàng ah, ma eh. ñàkk xam-xam waaw. Ah. parce que ndaw si daanaka ko bi ko waa ji takk sax seize ans dix huit ans moom quatre vingt dix la juddu waaye daan ko takk lan quatre vingt deux mille lan deux mille neuf xaw ko côté en cas bi mu koy takk quatre vingt dix xale la ba tey quatre vingt dix ba deux mille dix hmm? quatre vingt dix ba deux mille dix ans dix ans la way waay way seize loolu ay loolu ay seize ans ay seize ans dix sept léegi waa ji bi mu koy takk waaj daf fekk mu feebar. mu ne dafa bëgg jabar. ay mbokkam ne ko benn xaritam am nañ fi benn xale bu jigéen xale la te te moom papam daa gaañu yaayam xel bi dafa sutante moom xale jigéen bi. bëgg na fenn foo xamante ne nii bëgg a dem jaamu yàlla waaye tamit kookuy dimbali ko ndax baayam dee moom xale jigéen. yaayam xel mi dafa sutante. ba waa ji ñëwee wax yéen say ñeneen mbokk yeeg nijaay ak yooyu maye ko. Mhm. nee nañ daal waa ji daal di dikk nekk moom ab diir rek mu daal di dem toog na ay ñeenti weer gisatul waa ji mu koy woo mënatu ko jot ba ko ko mayoon la dem mu ne ko daa changé numéro. Mhm. mu dem jëlaat numéro am woo ko ne ko mais yow lii lan la ba nga fi ñëwee ba tey jël ma jànq jël ma jànq ba léegi nii tegatuma la bët wax wax wax ba waa ji wax ko fi mu ne mu fekki ko. bëgguma wax fi mu nekk fii ci Sénégal waaye moom dana ko dana ko tudd. Mhm. dégg ah ndaw sa ne fa moom ndaw sa ne fa moom waaye la mu seetlu mooy ba mu ëmbee ba dem kër docteur ñi ngi ko naan yow ndax kii sa jëkkër la mu ne ko waaw kii kañ la la takk mu ne ko nangam mu ne ko aha mu ne ko waaw ñu bàyyi ko ci biir dégg nga ne ko waa ji bi mu si daay ak léegi ëpp na fukki at. xam na ah. déggoo li ko docteur yi wax. bi ñu ko defalee sa ba gis ci moom doomu jàngoro sida ji fekk boobu mu ngi ëmb. ñu ne ko yow sa jëkkër ji nga ne moom mi la takk teel te kii depuis deux mille neuf ou deux mille deux ba tey moom mi ngi ak jàngoro ji ñu ne ñoo dëkk fii. mu ne dama koy gis muy naan ay comprimé ma naan ko doom yi doomu lan la waaye du ma expliqué. danaan ma ne samay garab laay naan ndeke laa sida. moom man mënta am fit soxor la ba wàllu na ko jàngoro ji nii ah, wàll yàgg na nga sax na waaye fi ngay xamee ne góor dañoo bëri te wuti mhm, mhm. ci lii la nekk ak waa ji ma fase ak doo ma fase ba sëy ba tas amu ci am na ci njaboot wala waaw ba beneen góor gi gisaat ko foofu nag mooy tas fi non lu grave laa lay te su tey bii nee naa la man mosuma ko gis. beneen góor gisaat ko j'espère que projet wul ci beneen góor bi. non non non non non ah, moom wax na kooku carrément ne ko dama feebar. ah alhamdulilah. Mhm. waa ji ne ko dara dama laa bëgg te bëgg naa laa jàppale. mais. yow lii kenn alaaji bu dugal mais lalati na <laughs> ah, nag. ah te dis nag xam nga moom. day wax ba yaakaar juddu mu defaat beneen mais. luy mais mais lan. yow lii est-ce que war naa koo teg. Ah, ah lu bul ko teg bu ne man daf man na a indil ay ñool-ñool daal vraiment. mais war naa ko teg. aide mon pauvre cœur. damay laaj nit ñi moo tax ma ne la deuxième partie bi il faut que après ñu téléphone bi nit ñi xelal ñu ndax man lii moom ça dépasse l'entendement. ma ni mais gi nga lang nii boobu ba tey taxaw 22 pour lan la. non non non mais gi du ma ko wàcc. fëggal car rapide bi ñu dem. sonn nañu mais. sa doom ji na tekk boo demee mais bi xam na lu ci topp. te damaa tiit ba. non non xaw ma. Serigne Assane Fall maa ngi koy nuyu. waaw madame Fall Roqe Dramé dama tiit. dama tiit mënuma nuyu ah. mais mais lan. xaaral daal ndeyum di liggéey nag moom moo wax de ndaw si ci boppam kenn waxalu ko moom moo wax. moo ñëw wax waaw moom mi jëkkër ji wàll sida daal 90 xale la. xale yi. Chimère ana ndaw si. dama nekk ak sama papa ak sama yaay sama papa gaañu sama yaay wéradi wéradi xel bi muy takk sama yaay sax. daf ko doon jàppale ndax wér di wér di xel boobu noonu sama famille kër maam ñu seen loxo jotu seen ginnaaw bi ñu takkee sama yaay ci wéri di xel boobu noonu ci laa ci juddu léegi nag ma am fukk sama papa gaañu ma am fukki ak juróom benn léegi benn waaye jógee fee magam moo takk sama mag doomu ndey sama magu doomu ndey léegi bu mu ñëwee mu ne moom jabar la bëgg dafa woote téléphone mu ne jabar la bëgg léegi magam bi daal ne ko am na benn xale bu jigéen sama rakku jabar bi di mi ngi fi su dee bëgg nga kooku man nañ la kaa doxal bi ñëwee wax ma man tamit gis naa ne sama yaay wéri dina wér di xel te sama papa gaañu na te yëpp man yaakaar naa ne ak lu ma a am dugg néegu sëy toog jaamu yàlla ba ñu nekk di dund yenn situation yi moo tax kooku ñëw bi mu ñëwee bi ma takkee laaj na ma sax ñaata laa lay may ma ne ko lépp loo ma may yor go rafet moom ma ko gënal ndax sama yaay xelam matul sama papa gaañu na sosuma si kenn samay nijaay buñ ma tane woon sax waaw wante samay nijaay tamit la yàlla xam doy na seen loxo jotul seen ginnaaw léegi ma mujj sëy ak moom bi ma takkee bi ma jëlee jànq ci la daal di dem bi mu demee toog na ñeenti weer ma ko dara su ma wootee téléphone boobu noonu du ma si jot ne ko yow de su ma woowee sama jëkkër du ma ko jot mu ne ma léegi moom de dafa changé numéro naa la jox numéro bii daal di yëkkati numéro beneen bi jox ma ko bi ma ko joxee ma woo ko ma ne ko yow lu tax ma gëj laa dégg mu ne ma du dara man de damaa demoon liggéeyi ma ne ah am naa ma ne ko la tax nga changé sa numéro mu ne ma dara. léegi yow lan la ma ne ko man kat damaa bëgg ñëw foofu noonu parce que ak bi ma takkee bu ba léegi xamaluma la dara yónnee woo ma wóoroo ma defoo dara ak situation nii man nee naa la sasuma la dara yor rafet rek laa laa séntu si yow. sama papa bi bi ma la may laaj na la ñaat laa koy may ba avant muy wax man nee naa ko yor gu rafet rek ndax xam naa sama situation yaay xelam matul sama papa génn na àddina sa suma si kenn bu ma sañoon nga yor ma yor gu rafet sasuma la dara. yor ma rek yor gu rafet loolu laa ñaan léegi nag bi ma demee fekk ji ko dëkk bi mu nekk bi ma ñëwee noonu yàlla dafa dogal bi ma wàccee ay deux heures di matin léegi mu daal di jël sama sac daal di daal di ànd daal di dem bi ñu demee noonu léegi ma gis man jànguma yàlla dafa dogal man jànguma maa ngi nekk ak sama papa ak sama yaay man bu ma génnee Touba moo nekk sama jëmukaay yàlla dafa dogal bu ma mësee génn muy boobu Touba laa daan dem fu ma daan dem léegi man yàlla dogal na ne jànguma man na gis naa muy naan continuer ma ne ko lii lan la mu ne ma lii de samay continuer rek la ma ne ko ah mu ne ma yàlla nag ñuy dogal ma daal di ëmb bi ma ëmbee ma dem hôpital bi ma demee hôpital noonu ñu ne avortement la jàllale ma raison de Tamba ma daal di dem foofu noonu bi ma demee foofu bi ma tanee ileeke mu yóbbuwaat ma hôpital bi dëkk bi ñu nekkoon déedéet daf ma delloowaat këram yàlla ñu dogal dogal ma toog ñaari weer ma daal di ëmb. bi ma ëmbee ma daal dem hôpital bi ma demee hôpital ñoom ñu njëkk a profité ndax diw mii nii sa jëkkër la ma ne ko waa sama jëkkër la kay mu ne ma xanaa ay mbokk ngeen ma ne ko bokkuñu dara de lan moo tax nga laaj ñu loolu ñu ne ma dara léegi yow doo ku ëmb da ngay def fii test test bi nga xam ne si ne moom ngay def moom la ñu xool bu dee da yor doomu jàngoro yi sida ñi xam bu dee yoroo ko tamit ñu daal di xam léegi man tamit maa ngi am boobu temps fukki at ak juróom-benn maa ngi judd le 17 le 17 octobre 90 maa ngi ko judd année boobu laa judd ak ay 2009 2009 boobu noonu ma nekk ak moom léegi bi ma docteur bi waxee loolu man tamit li ma wax noonu tamit dëgg la ku ëmb da ngay xool sa deret ba xam boo yoree doomu jàngoro bi ñu xam bu fekkee tamit yoroo ko ñu xam léegi bi ma bi ma ne ko defal ma mu daan may defal bi ma defalee noonu mu ne ma léegi da ngay xaar bu subaa nga ñëw fi ma ne ko xaa ah, mu ne ma waa suba nga jël sa résultat léegi man tam ma daan dem bi ma demee ma daan toog mu ne ko neen de suba ma jël loolu de jarul sax ngay dem ma ne ko ah mu ne ma waa ma ne ko lan moo tax jarul may dem mu ne man ngaa bàyyi ba julli waa rendu man tam ma toog sage-femme boobu yónnee ndaw koo xam ne si ne moom maanaam moom ñoo doon ànd mu ne ko ana diw mu ne ko sa kër ga mu ne ko ah am naa mu ne ko boo demee nga ne ko mu ñëw jël si ra mu ñëw jël si kiyam yi lii mu ñëw jël si testam bi def fii nii résultat mi ci laa ñëw bi ma ñëwee mu ne ma kaay ma daal di ñëw mu ne ma foo dëkk ma wax ko mu ne ma yéen ñaa ay mbokk ngeen ma ne ko déedéet muy waxtaan di waxtaan ma jug tëj bunt bi bi mu tëjee bi jël foofu kaasu ndox teg foofu mu ne ko lan la ma dafa am benn doomu jàngoro bu ñu gis ci sa yaram. ma ne ko doomu jàngoro man naa ma ne ko ban ban lan la mu ne ma daara jàmm la ak salaam ma ne ko jàmm ak salaam mu ne ma ne ko diw tey ngaa bañ wax loolu mu ne ma ah ma ne ko waa mu ne ma neexut ba neexut da nga yore doomu jàngoro sida man nag li ma gën a metti mooy jaaxle naa xaw ma fan laa koy walloo. xaw ma kan lay dem ma wax ko sama yaay weddi na weddi xel sama papa si jëm boppam gaañu na xaw ma kenn koo xam ne sii sës naa ko léegi nag am naa bis boobu lu ma métti torop ma ne saa soxna bi nga wax amul mu ne ma ah ma ne ko amul mu yóbbu ma si docteur docteur seetaa sama deret mu ne ma lii moo am ma ne ko amul mu ne ma kuy sa jëkkër xanaa du diw ma ne ko ah kooku mooy sama jëkkër mu ne ma kooku depuis 2000 ñu ngi faju doomu njàng sida bi mi ngi la takk 2009 léegi moom lan moo tax waxu la ko. ma ne ko man jànguma gis naa nag am na programme bi muy naan mais moom bu dee naan su ma ko laajee li lan la mu ne ma lii samay garab la léegi man tam ma nekk ak moom loolu man xaw ma ma jànguma alxuraan laa jàng yi sabihu laahi laa yem la hunnal ko wala ko xam du foofu laa yem ci alxuraan sama papa jël ma dugal ma ci waañ bi may may jàng liggéey jigéen parce que sama yaay wérul ma nekk fa ay samay tànta léegi man sonn naa jaaxle naa xaw ma fu may jëm ma gardé ëmb boobu nekk ak moom ak fitna nekk ak moom jaaxle nekk ak moom tiif bu wax amul kenn ku ma koy wax sama yaay tey bu ma ko waxoon mu wax keneen wax keneen ndax xelam matul fi mu toll nii garabam gi muy naan sax bu ko manqué day daal di daanu boo xamee ne si ne amu ko mu daanu kon kooku bu ma ko waxee sama feebar dinaa sonn lool léegi nag. bi ma defee loolu ma daal dem to bi ma ñëwee wax ko mu ne ma lii du dara lii feebar la rek ma ne ko feebar mu ne ma ah ma ne ko waa kon baax na léegi ma gàdd sama am toujours man moom ñu dëkk ay problème ay problème lañ dëkk di dëkkee noonu di dëkkee noonu léegi ba yàlla dogal man ma daal di am doom bi ma amee doom noonu bi ma amee doom noonu léegi sage-femme bi ne ma léegi da di fexe nga ñibbi ci say mbokk ma ne ko man kay dinaa ñibbi ci laa daw bi ma dawee ma daal di ñibbi ci samay mbokk bi ma ñëwee waxuma kenn li ma dal ma muñ toog ànd ak sama doom toog mu daan ma jël si waat ma ma ne ko diw li nga ma teg mu ne ma loolu du dara ñëw rek nga toog nga sëyal ma léegi man nan laay def ma obligé ma daal di mujj dem delluwaat ci moom bi ma delluwaatee ma muñ muñ muñ muñ ma koo muñ parce que bu ma tuppee xool ko xale bu ndaw fukki at ak juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn fukki at ak juróom-benn te laa xam feeb fukki at ak juróom-ñaar ma yore sama doom su ma xëppee xool ko xam xel fu mu jógee te xaw ma fenn fu ma koy waxee léegi nag ma daal toog bi ma toogee may muñ loolu ba xale bi am ñetti weer ci laa daw ñëw suñu dëkk ma ne ko man maa bëggoon bëggatuma léegi daal di jël yëpp teg ko ci loxoy borom subhaanahu wa taala ndax man démb ma dékku ma léegi benn xale bu góor gis ma topp ma ma dàq ko bu topp ma ko mu topp ma ma dàq ko ma ne ko man pare ma pour sëy samay nijaay samay mbokk yi commencé dafa bëgg a jël tànk bu bon kii dafa bëgg a bon ma daal di commencé naqari deret aw ma ku ma waxal chaque jour damay beru mer léegi nag xale bu góor boobu bi ma demee ba ne ma lan mooy sa problème ma expliquer ko mu ne ma man bëgg naa la ma nekk ko ah mu ne ma bëgg naa la ma ne ko ma damaa pare pour xaaru mu ne ma xaaru baaxul daan may takk bi ma takkee yàlla dogal man na moom ñu dem hôpital ñu seet ko ñu ne ko yow de sa jabar mi ngi ak doomu jàngoro sida bi mais yow amagoo googu ma xippi xool ko mu ne ma man su ma sañoon doo ma xool sax ci loolu man bëgg naa la ba pare dara du tax ma bàyyi na lenn kay mooy sama problème li sama loxo jotu sama ginnaaw man tamit ma ne ko dinaa la muñal bu ñu añee du ñu reer te bu ñu reeree du ñu nekk ma toog ak moom ma am doom doom boobu noonu ay mbokkam ñoo def ma amaat doom ak moom ay mbokkam ñoo def maa ngi dund man ak moom loolu benn néeg lañu am sonn nañ torop te man xale bu ndaw laa instant yi maa ngi ak ñetti doom. ki nga xam ne moom laa jëlee foofu noonu ci doomu jàngoro a boobu noonu kooku mi ngi dugg dix ans ren xale boobu day jàngi école saak bu mu jàngee sax action sociale ñoo ma siy jàppale tabaski mës a jot dund naa foofu juróom-ñetti at juróom-ñaari at yu set huit at mi ñu dugg mooy juróom at léegi maa ngi koy dund foofu mës rey tabaski may ñaan autorité yi ak mbokk jullit yi ak képp koo xam ne mi ngi jàppale jigéen mu jàppale ma te yàlla rek tax maa ngi dund loo xam ne si ne maar ñëpp kenn wax ko ko daf may def sax may mer man bëgg naa liggéey mais dama amul lu ma liggéey laa amul xeeb ma dara lu ma nit jàppalee ma daan sama doole bi yor sama njaboot gi laay ñaan ndax man xale bu ndaw laa amaguma fanweeri at quatre-vingt-dix le dix-sept octobre quatre-vingt-dix bépp autorité bu ma dégg bàyyiwuma kenn bàyyiwuma ma dem fay sàll bàyyiwuma kenn si daal bi suñ tuddee feebar boobu rek sama ndaw gi yëpp day dem sama àdduna yëpp dee tukki sama gëstu gi sama ñetti doom yi li gën a metti mooy boo xëppee nga xool sa doom feebar mu leer na la yow mii feebar nga te yow amoo yow loo leen jox yow loolu bis boo bis bu set yaa ngi xalaat dee bis set yaa ngi xalaat la sa doom yi léegi problème boobu may dund te aw ma sax fanweeri at yu mat le 17 octobre 90 laa judd bépp mbokk jullit bu ma diglu te dégg ma te man maa dimbale te subhaanahu wa taala tax te nabiyeen Moustapha maa ngi ñaan ñépp bàyyi ma kenn. sonn naa trop sonn naa om fu ma koy warloo bu fekkoon ne man sama yaay mën naa jàkkaarloog man ma wax ak moom diggante yaay ak doom amuñu nëbboo mais ko xelam matul mënoo toog di ko wax kenn. mais war naa ba sonn sonn naa maa ngi ñaan ñëpp képp ku may dégg li ma sonn mooy ñetti doom yi jigéen dama yàlla boon bi dénk kii di dina amagul at. ñaar ñeenee xool nañ leen amuñu doomu jàngoro sida bi léegi nag kii nag bu amee at lañu ñu xool keroog bi ma ko ëmbee assurance sociale ñoo ma jël ak préfet di mat jëmbale ci ordonnance yi. ñoon seen kayit yi sax a ngi nii ama yore di ma dimbale ba keroog li ma amee doom ordonnance yi ñoo ma si doon jàppale sonn naa képp ku ma xam boo ne ko mais dina la wax ne amul dara sama jëkkër nag samay mbokk yi nga xam ne si ne ñoo gën a sori dañ may wax sagaru nit bii nga àndal sagaru nit bii nga topp mais man dinaa ànd ak moom sëy ak moom ci ngor ndaxte moom mi ngi ma jàppale ci ngor bu neexoon mu dàq ma bu ko neexoon keroog bi ko dëgte doo xeet sa jabar bi nga ànd ak doomu jàngari sida suur boobu la may wàcc wala mu génne ma te ma génne woon xalaatuma dara lu raqaaroo mi ngi ma fat ci këram benn néeg lañ am man laa ba sama doom yi tëdd sax am ñu ko maa ngi ñaan ñëpp képp koo mën a dimbale ma liggéey ci sama doole ji ma liggéey ci sama doole ji jaay ak jënd chaque bu ma amee téeméeri dërëm bu ma jox sama doom yi togg ko mbaxal wala ceeb ki tax ñi lekk ndax man sonn naa sonn naa sonn naa trop. Euh, Soumer. mami Samb nag dinañ ko mujj jëlee fii ci tës gi ah. jooy. ah non. dinañ mujj jëlee ci tës ah. moom jooy moom. yow dañ la fay teg pour ngay indi ay solution mais indi wuñ nga fi pour ngay jooy. waaw lu mu miti miti da ngay muñ. metti na. de. xam nga barki démb lii rek laa fi doon wax. ku ne ak nattu. Mm-hmm. la yàlla di teg. ci loo ne sante ci loo ne sante gis nga moom mii moom mii di wax nii. am na ko gën a métti. man li muy wax lépp damay wax alhamdulilah rabbil alamin. waaw ba keroog muy teel a man maa ngi wax alhamdulilah. waaw sant yàlla ndekete man aw ma problème de. sant waaw. fekk ñun ñi ñëpp nag koo ci fëgg nag mi ngeeg boo xamante ne nii. waaye bis boo demee si hôpital wala nga dem ci armeel rek xam ne euh, yàlla daal moom daal moo yor loxoom. di ko xool nu mu ko neex mu la ko ne te kenn mënu ci dara. am na yu ko gën métti la. foofu non dama ne. Ah, am na ñoo xam ne instant mii ñu ngi ci lal toog di xaar bis bu rafet. moom yàlla dogal na ci moom mu sëy ñu toppatoo doom yi ba ñaari doomam yi amu ko keneen ki ñu ngi toog di xaar mu am at mu ngi nittali moom soxlaam. pour nit ñi mm-hmm. jàppale ko. Mm-hmm. te yor jàngoroy sida tekkiwul ne suba suba suba nga dee te loolu itam campagne la boo xam ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk di def sensibilisation di ñaax nit ñi ñu ngi koy xamal nit ñi tur yi moo ragallu mhm. mais néewul ne da ngay feebar tey dee tey mhm. wala ku am jàngoroy sida waroo bokk ak moom yére ku am jàngoroy sida waroo bokk ak moom lekk ku am jàngoroy sida waroo bokk ak moom euh, bu sangoo ci sas bi nga ne doo doo mhm. fa sango soo duggee si toilette nga ne du fa dugg doo leen bokk lal déedéet yooyu moom te doo ko wàll ah, sëy ngeen di sëy laa te doo leen protégé wu te doo ko wàll parce que am na traitement bi noo koy jële yow da ngay dem ba virus bi day faible ci sa deret ba yow sa jëkkër bi ngay sëyal wala sa jabar bi ngay sëyal da ngeen di sëy sans protection te kenn du wàllu moromam sida transmission mère enfant bi gis nga wax na ko parce que loolu sama préoccupation parce que moom comme amoon na rek man je me dis li desoon mooy sauver xale yi te fin bi wax na ko xale yi amuñu donc transmission mère enfant yow da ngay am sa doom jur ko mu jaar fa mu war a jaar nga nàmpal ko deux ans te du am jàngoro sida parce que traitement bi tamit moo toll foofu ñun tamit tamit nañuy ñeme di dem xool suñuy deret waxuma ci cas bi kese mais dañ ciy profité tamit euh, def def li nga xam ne mooy prévention et tout <laughs> euh, ñi nga xam ni képp koo xam ni majeur nga te xam nga ni dëgg la musoo séq ak jigéen wala musoo séq ak góor lum ci mënti demee demal hôpital test rapide yaa ngi fa dangay dem ni defal la léegi mu génne ñaari baare wala benn bi nga dem xool sa deret su ko defee nga jël sa traitement parce que sida tamit du jàngoro moom ci wam du jàngoro virus la boo xam ne day nekk sa deret di yàq ñi nga xam ne ñoo doon aar ba jàngoro bu jugee ci bitti day dugg mu ngi mel ni kër gu amul buntu sida lool la da ngay nekk ci kër goo xam ne amatul buntu donc sàcc bu ñëw sàmba bu ñëw day ñëw dal sa kaw donc yow sa système de défense bi lay yàq jàngoro bu tëllee fële rek day ñëw dal la loolu mooy tax ngay faatu mais léegi booy jël sa traitement loolu mu yàqoon ci sa deret mu la mu la daan protéger te sida bi dindi woon ko loolu lay indiwaat mu am ay système yoo xam ne dañ lay défendre am cellules yu lay défendre anticorps yi yëpp ñëwaat ñu lay défendre ba yow nga mën a dund dund lu yàgg sax gën a dund bien portant yi te doo wàll kenn merci beneen préoccupation bi ma am mooy waa ji mhm. ndax mën nañ ko topp kan jëkkër ji waaw waaw waaw parce que nga am jàngoro sida conscient que ni am nga ko nga tey ko takk jigéen wàllu ko yàq àddunaam nii bu dee procédure am na dañ koy topp d' loolu après la deuxième partie bi 88 628 89 90 ngeen daal di bës nag un bokk ci waxtaan wi Mantoulaye moom daal dina koy lancé Khady Ndaw di doomu Fatou Ndiaye ak Waly Ndaw dëkk Pikine Icotaf booru école privée Gaynde Fatma daa réer depuis le 6 avril 2011 waaw huit ans xale ba réer rek léegi képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 036 50 82 kii moom mi ngi tuddoo Banna Kebe nee na dafa réer rek nag euh, benn euh, portefeuille depuis jeudi passé. Euh, Euh, euh, fan la woon euh, booru Parcelles Assainies la doon dem mu ngi defoon nag xaalis ak carte d'identité permis de conduire képp koo xam ne gis na ko na woote ci 77 815 44 73 kii moom mi ngi tudd Modou Penda Ndiaye moom nag euh, dafa fàtte ci benn Peugeot 307 brick beige euh, Touba doon dem nag euh, buntu Pikine ay bagages yu bëree bëri ak enveloppe ak document képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 352 62 07 kii moom daa réer Oumar Dramé toll ci fukki at ak benn 11 ans doomu Amadou. Ah, ak euh, Mariétou Bari dëkk Wakaam képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 378 31 42 Thierno Fall moom daa réer les carte grise ci turu Bouna Diop Toyota 4DK 84 30X ko gis nag na nga woote ci 77 939 44 22 kii moom depuis le 14 Abdourahmane Conté 15 di doomu Moustapha ak Adja Bandia dëkk nag euh, Kër Serigne euh, foofee ca Gambie képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 227 68 22 kii moom daa réer ni ki démb nag ay booru 14 heures Adja Thiam ak Babacar Thiam euh, toll ci ñaari at ak ñetti at dëkk Caaroy Gaar di doomu Moussa Thiam ak Aline Badara euh, Thiam voilà. képp koo xam ne nag euh, gis na ko daal na woote ci 78 399 22 91 nga laajte Ndeye Fatou Niang kii moom Babacar Senghor ñu naan ko Badou 35 ans dëkk nag Fatick Njagañaaw moom nag daa demoon ci moto booboo ba léegi nag daa ñëwaatul ñaari atu yàlla ngi ni képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 76 539 43 03 nga laajte Ibou Faye nijaayam la. Soulère gars yi dañoo ñëw. waaye laaj. mais lii euh, la. Ousmane Niang moo fi nekk. voilà Ousmane ana foo ni nii. voilà merci ñun nag rond point bu Dial Diop la ñu nekk xatul nag su dee nag ñi nga xam ne dañ ne dem allée du centenaire euh, wala nag euh, obélisque et ses environs ça se tranquille juste rek na fa de signalisation boo xam ne. moom moo lay téye ci intersection bi ñi nga xam ne ñoom ñoo bàyyi ko également du côté de Colobane euh, rond point bu parti socialiste moom ça circule tranquille ñu bàyyi ko Grand Dakar jaar zone A et B également ça circule tranquille en ce moment jaar nañ également sànq Colobane rang bu rek moo lay xaar laata ngay jot rond point bi bu dee ci autoroute bi nga bàyyi ko euh, ñi jëm ci autoroute bi également bëgg dem vers pompier euh, la voie complètement dégagée élage waaye jaajëfate voilà aywa sama camion jën ba nag kon tey ma nga jëm nag euh, Nord Foire ca ah terrain basket bi la dend ak euh, yum yum ba ah ok d' accord voilà nag dugg na biir Nord Foire xanaa bi yoon bu fa moom tey nag moom ndeysaan euh, sama mami sàmm mi ndeysaan tey waxul sax ci camion jën bi <laughs> ndax ndaw see ko jàpp ndeysaan camion jën kon ma nga Nord Foire ca terrain ba daal leero ak ba voilà léegi nag xaar ñu ñoo dem publicité te nag daal di wax nag ci waa nga xam ni moo si daa tey ko takkub soxna Euh, ba pare euh, bon gis nga góor de gis nga différence góor de. <laughs> xoolal kii mi ngi am sida takk ko wax ko dara 2000 la ko am ba 2009 la takk ndaw si jox ko jàngoro ji beneen góor ñëw ne ko man bëgg naa la te dinaa la jàppale ndax lii nga xam ne moom ngay dund tey ndaw si nëbb ko ko xamal ko ne ko man damaa sida. ku góor gi ne ko waaw xoolal ma ñaari góor yi. moo tax ñu naan góor ñëpp dañoo bon attention de. Hmm. ni ñuy waxee jigéen bu bon daal comme bañ bu mitti bu dil sànni noonu la amee tamit vraiment ay jigéen ñu baax de ay nitu yàlla ñoo xam ne danañu jur ay wëliw te ba léegi ñu ngi ci réew mi. wallaay bu ñu yaakaar ne jigéen bu bon jigéen jigéen bu baax bu mënatul jur wëliw amatul de déedéet déedéet wëliw wëliw mën na xanaa xam nga wëliw wëliw. Mm-hmm. wëliw mën na feeñ fu ne. Mm-hmm. wëliw. mën na feeñ ci jaaykatu portable bi. wëliw ci classe bi élèves yi xam ne kii neexul ba neexul mais wëliw la yàlla may na ko de. Mhm. yàlla may na ko. Mhm. xoolal ma bi rek. wëliw mi ci jaaykatu journal bi. wëliw mi ngi ci jaaykatu saag bi. Mhm. ba ci wëliwu yu jigéen. attention. bu ñu wax rek ne jigéen ñëpp rek ne wala góor ñi góor ñi. kay du ñu dara góor ñi dañoo bon xam nga tey lii weddi na loolu. bu dee góor def na fi benn penalty ci ndorteelu tës gi xoolal ndaw si fan la mujjee. te dafa am jàngat lu ci am solo ci ci jigéen ñi boo xam ne ku góor gi exemple lañ jox wala leçon la ñu jox ah, mooy léeg-léeg nga gis jigéen nekk ci ménage ñu koy dóor di ko humilier di ko toroxal mu ragal ni du ma génn la waykat ba waxoon rek nit dangay jàpp nit ne su ma bàyyee ma torox waaw yàlla seetaan la di la seetaan ak moom te xale bu jigéen bi dafa am fitu ni non yaa ma teg li ma metti dootuma dundateeg yow te tegoon na ci àddunaam dootul amati jëkkër mais yàlla wàcceel na ko leneen lu gën moo tax dans la vie parfois da ngay am force xam ni bu ma génnee mën naa am leneen lu gën. kii de nee na ma mamee rek nga gis waaye ñii jooy tey bari na. madame Thiam yaay Pauline. nee na ngooñam tuuru na ah dina tuuru ñëwal Sumer.